Euh, premièrement aussi mu nekk loo xam ne yëkkati nañ ko démb moom mooy point bi nga commencé moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy les marchés moom mooy le marché de nettoiement bu mu wax nee dañu def appel d'offre moo am ku ko gagné directrice bi foqati ko jox ko ki nga xam ne moom mooy seet premièrement loolu mooy li nga xam ne amul du dëgg xaw ma fan la waa ji jëlee information boobu xaw ma kan moo ko ci kan moo ko informé te loolu aussi dina répondre si acte yooyu li fa am moom mooy marché boo xam ne def nañ appel d'offre ki ko gagné gagné ko mu dëppoo ak li nga xam ne direction bi soxla na ko ñu jox ko ko leneen amu fa wax na ne aussi benn marché la boo xam ne c'était à 10 millions Euh, boo xam ne moo gënoon yomb ñu dem def ko euh, ñu dem jël boo xam ne vingt cinq million la te société bi amul xaalis wax na ko démb si ay kàddoom donc li am moom mooy ñaari marché yu ñu boole moom mooy marché de nettoiement ak marché sécurité bi donc aussi jox ko ko moom moo tax euh, affaire yi jógee de 10 millions près à 25 millions et aussi c'est annuel loolu aussi leeralu ko c'est pas par mois et c'est annuel noonu la fa demee et donc bu mu fa demee noonu aussi mu am loo xam ne aussi euh, da doon am ci li nga xam ne moom mooy marché de nettoie bi maanaam yow tey instant yi euh, dañ leen doon fay mais bu ñu leen fayee entreprise bi moom mooy jëndaat li nga xam ne ay produits yoo xam dañ koy soxla mais directrice bi jël benn offre si appel d'offre yi koo xam ne aussi moom mooy euh, moom mooy chargé wu loolu yëpp aussi qualité yi nga xam ne soxla nañ ko dina dina dinañ ko mën a def boole ci yeneen secteur du ci dem ni Thiès ak Dakar yëpp euh, li nga xam ne moom mooy suñu locaux yi ñu boole ko commission des marchés bi noonu la demee. et aussi loolu tamit lu mu si xaw a jaaxal moom mooy li nga xam ne euh, moom mooy euh, passation de marchés dafa am benn charte boo xam ne moom moo leen moom moo leen moom moo leen tënk c'est-à-dire. lépp li nga xam ne dañ koy def ci ay commu comment dirais ci commission marché dafa am benn charte charte boo ne moom moo tënk da ngay signer c'est-à-dire bu wane ne exactement ne li ñuy def nii amut fen foo xam ne aussi war nañ ko fa mën a war war nañ ko fa war nañ ko fa mën a génnee donc loolu aussi dañ ciy invité ki nga xam ne mooy directrice bi mu xoolaat exactement li nga xam ne moom mooy. entourage daal yow daal lépp gongo. Ah. foofu lépp mu ngi dox. non mais dama lay wax comme li ñu wax noonu dama lay leeral ak li nga xam ne moom moo si am. et donc aussi parlant de marchés sax donc dafa am loo xam ne au moins syndicat bi waroon na si jiitu ngir expliquer si aussi loo xam ne day gën a leer moom mooy Thiès. parce que dafa am benn marché bu fa am boo xam ne ancienne direction bi da ko da ko da ko da ko contracté moom mooy benn cours de réseau bi nga xam ne moom mooy Thiès moo yore li nga xam ne moom mooy système distribution bi nga xam ne moom mooy léegi Thiès mu am benn marché boo xam ne dañ ko fa euh, dañ ko fa contracté mu nekk à hauteur d'un demi milliard plus de 300 millions pour aussi li nga xam ne moom mooy cœur de réseau bu Dakar bi bu taxawee cœur de réseau boobu mën a jël en redondance marché kees boobu tey boo fa demee je pense très bien que bu la nee fii def nañ fi 20 millions wala 30 millions da ngay téye sa gémmiñ donc loolu nekk loo xam ne aussi euh, syndicat bi waroon nañ ci gën a mën a appeler bu fekkee ne transparence lañ bëgg ak nga xam ne mooy euh, ma lay